jiitu réew mi Macky Sall ni tey la fas yéene rek jot njeexitalu ko dialogue national bile bu ko weesoo dana nag wutali conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di eh, def seen pàcc ci loole nga xamante ne ni eh, moom mooy digle mu mel ni nag ay bés la boo xamante rek ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax ci wàllu langu ko politique gi bés bi le jour moom ci xëtamu njëkk. nee na fa fàng rek conseil constitutionnel di waxtaan ak jamono ji lu jëm ci taarixam bokk na ci nataalam moomu teg mu mel ni daal moom nañu ko bëggee woon jamono ji noonee la ñu ko beddee bokk na ci nag jamono ji laaj ba tënku rek ci lekk sage ndax ñoom naka dañu togg see dara wala bokk dañ nekk ñoo xamante ni daal laale nañ ci wàllu ko politique gile bokk na ci rek laaj boo xam ne suñu naataangoo samp nañu ko ci coowal lu ni mel la le peuple yéene moom ci xëtam mu njëkk tey ji la mu fay waxtaanee bokk na ci rek manifestation bu FDR fippu ci njeextalu ayu bés bile jàppale nag ne mobilisation bile ab pëccëxoo xeex bu métti la rek daal di mujjee diggante waa taxawu ak waa fu mel ni daal jamono ji yëf ya fitna kott la rek seen ak diggante bu ñu koy xayma ndaxte dafa mel ni daal dirante mbagg jaayante dool la boo xamante ni daal ci lañu ñu jublu ñaari camp yile muy nag eh, taxawaay boo xam ne daal la ñàkkub responsabilité kott la ñu ko gisee ci ëttu ko yëglekaay bi bokk na ci nag yéenekaay bi waxtaan itam lépp loo xam ne daal moom mooy arrêté bay tere loole eh, di yorinu wàllub ngànnaay Walf Quotidien yi ni kay moom ci coow le nag ne na gatsa gatsa la diggante Ousmane Sonko ko xalifa Sall bu ñu koy xayma seeni militant tàng nañ jër ku nekk ngay fëgg sa dënn daal yaakaar ne sa bos moom moo gën a taxaw jàppale nag ni jamono ji Euh, ci euh, kàddu la ba ci rek euh, sànnantey xeer bu ñu koy xayma ci lu ni la las yéenekaay moom ci loolee daal la mu ci wax moom mooy daal ku ci nekk ngay xëcc sa karawu morom bu ñu koy xayma Ousmane Sonko Khalifa Sall seeni naataango ñoom ñëpp ku ci nekk jamono ji taxaw nga taxawaayu ko fépp xeernantey xeer la nag yoo xamante ne ni moom moo tas manifestation bile bokk ci nag woto yu bëri yoo xamante ne rek dañ leen a tojate ñebano ji ñu jàpp rek ni kaw wu ko Khalifa Sall nag ñoom jamono ji wala ñoom ñoo tas bi lekk ndaje la tribune yi ni kaay moom ne nag jamono ji ab kujji la boo xamante ni daal ku nekk ngay yàq sa moroom jamono ji nga xam ne moom njiitu réew Macky Sall ah, mu ngi gën a la taxawaayam ak ba sukk naataangoom jamono ji Pastef moom daal ngay duut baaraamu tuuma Barthélemy Dias jàpp nañ nag ne jamono ji ñoom moom Euh, moom moo fay ay nervi ngir rek ñu daal di ñëw saboté bi lekk rassemblement bokk ci loo xam ne euh, ñu ngi ko fay euh, naqarlu coowal Maimouna Ndour Faye tam bokk ci tu ko yëglikaay bi nee nañ naka moom moomee tane na bu baax a baax waaye rek terewul ñu waxtaane bi lekk agression doon loo xamante ni daal jàpp nañ ni war na mën a tax daal ñu toog xalaataat bu baax a baax ci suñuy ëllëg ñu àddu jëmale jamono ji nag ci l'info yéenekaay mi nga xam ne nag dellu siwaat nag ñun ci coowal politique bi le ak mbiruk fippu sauvagement nag ñoom jamono ji ñoom ñoo ñi nga xamante ne ni ñoom tasaare nañ tasar bi lekk manifestation xaañantey xeer saagante xeex bokk na ci nag loo xam ne moom la ñu gën a nemmeeku ci bi lekk ndaje bokk na ci nag loo xam ne l'info ne na dafa mel ni daal ak ko jéggi ñoom tàng nañ jër seen ak biir libération yéenekaay moom di ñu xibaar ji ci génn ko àdduna Amadou Amar mi nga xam ne daal moom lañu ko doon xam ci turu ka bay di ca appartement foofee ca immeuble cristal jàppale nag ni euh, libération la mu cay wax daal moom mooy jamono ji nga xam ne moom moom bay ma nga doon sukuraat ginnaaw excès euh, drogue bi nga xam ne euh, jot na koo jël ay xaritam daal la ñu def mu boy yulli ay poosam ba noppi rek daal di daw jàppale nag ni ak kenn ci ñoom la mu jël ci moom daal mot na ci lu fuutam rek ba ci fukk ak ñaar ci ay yoo xamante ne ni am na jamono yi nga xam ne daal group ba ñoom ñoo nga doon bàyyi ko sali eh, ngir dellu siwaat ci eh, dakaar bokk na ci nag mbiru ko cocaïne boo xam ne daal jot nañu ko gis ci Rolls Royce ba nga xam ne daal moom moome eh, fa la ñu nekkoon na le point actu yéenikaay la ñu koy ndar keppe ñoom la ñu xëyatee ji rek bokk na ci mbiru may Maimouna Ndour Faye ak agression ba nga xam ne daal jot na ko subir jamono ji yéenikaay bi di xam ne nag ne Barthélemy Dias moom taxaw na rek dut baaraamu tuuma jamono ji ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy roox ndaw yi rek ngir ñu daal di yee fitna waaye tamit wax loo xamante ni daal la du nag dul noonu la Madiambal Diagne tamit moom duut na baaraamu tuuma Ousmane Sonko ak i naataangoom jàpp leen nag ne mi ngi Maram Ndiaye bokk ca convention des jeunes reporters du Sénégal la mu wax daal moom mooy lii eh, jàppewu ko rek ab dogaale waaye eh, nit ki ne la ko taxoon a jog daal bokk na ci eh, jël bakkan bokk na ci daal la mu waxtaane lii leer ba leer rek moom mooy le point ak ci yéene kaay ne nañu ak def jëf ci ni mel boobu daal la Euh, Fouras kenn gisu ko mu ngi yër ay tànkam rek di wër fii bu nekk nii ci askan wi. mi ngokk mbokk yi kon lii may li nga xamante rek moom lay indi kay fësal ci tey ji Aïcha leen ñaanal ñu jàngat ko ci jàmm. Euh, mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci jàmm ak salaam Grégoire ñu ngi lay jaajëfal. cant ak ngërëm ñeen la soo demee da ngay jël buy ak ngeer nga baxal ko nga naan dégg nga ça te fera du bien. yàlla def jàmm Aïcha ñu yendoog jàmm. <laughs> fàtte naa ni sax dangaa wóor. <laughs> merci Grégoire Ngom jaajëfal ko bu baax a baax damaa ragal ni sax est-ce que du koor gee ko jàpp muy yox yoxi <laughs> alors des leen ak ñun mbokk yi léegi léegi ñu dikkaat gën a yaatal xibaar yi ak li nga xamante ni moo di la revue web ñu di ci ànd ak Kajoor Cissé